من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فباللسانه فإن لم يستطيع فبخلقه وذلك أضعف الإيمان يوندي من لو كيسول نونا ناني نكو دي ديك لوخم مول كين ساني نيب ساني نيكو امنا نيكو ساني امنا نيكو ساني مول بوكو مونتي دي ديك سا لوخم غا واخو سلام امنا ньо خامي سين خام خام اغوتا ولا بو جي سين ام خام اغي سين فيت اغوتا جان نك كو نيمي ولا جوخني دوكو راي تالا كو نيمي ولا جوخني سا لوخو ني جان جانغي كاكوي راي ديو كون دغ ñemee tudd ko wax mu ne boo demee nag ba ñemee ko mënoo koo di dégg sa loxo ko wax sa làmmañ mooy ba sa xam-xam àggu ci wala bu sa xam-xam am na doole ju la féete ginnaaw yoo xam ne caabi mën na laa féete ginnaaw boobaa ñu ne la nga naqarlu ko soo ñett yooyu nag boo ci deful benn yont bi ne nag amatoo ci diine ci dara dara lu toll ni benn fepp amatoo ko ci kon noppi waruñu koo def léegi nag suñu mënee wax di loxo moom mënuñu ko mënaguñ ko waaye wax ci làmmañ man na la ko te nag dul doon ñooñu nga xam ne dañ leen di logal ba na duñ mën a wax dëgg wata taala am na benn bis ñu invité ma ci benn télé daa ngi tafsir Moussa Gassama islaamu log ma ne ko dindil log gi man loguma waaw loguma xam nga islaamu log baatu tubaab la mais nag wolof yi ñoom ko jàpp ni kon ku ñu tudd islaamu log rek da ngaa fagal islaam log ko ci say lex te kon boo logee say wax doo wax ay la lex ko ci log doo mën a wax moo tax benn bis ma ne ko man man la man man bokkuma ci ñi log mu ne li nga xam ma ne ko man maa bindoon wax ne yabbil sa log islaamu log bi bëgg a wax na yàbbi yabbi lum logoon te buusu door a wax ñu nekk fii di bëgg a wax te yabbi wuñ ñooy log logal seen wax du leen da yabbi sa wax ji bul ci leble bul ci fay sa bor kuy wax di leble mbaa di fay doo nekk gor bu kenn tax nga jaay sa ngor gi mbag njullit lu kenn mënta jënd mooy ngor ak njullit ku jaay sa gor ñu xeeb la fii ci àdduna ku jaay sa diine de ñu xañ la aljana doylu ku doylu nekk buur sa nguur du jeex ku fal sa bopp doo fulee ku mooy lu weex léeg-léeg sa gars yi dinaa ma da ngay rab ma leen waa rab islamique parce que léeg-léeg rappeurs yi dama leen a mere waaw ni may dégg kuy wax ci diine vulgaire nañ ko tontu léeg-léeg ma dégg benn rappeur boo xam la muy wax daf vulgaire trop te nit ñi lay wax te ki ngay waxal li muy dégg li muy gis day day day influence ci ci moom moo tax li ngay wax war nga koo tànn sa wax bi war nga koo tànn wax ju ñaaw bëgguñu mu jëm kaw laa yuhibbu llaahu jahra bi suu'i mina l-qawli illaa man zulim suñu borom nee na wax ju ñaaw bëggul kenn kenn ku koy wax dégg nga ca kaw lu dul ku ñu tooñ ñu muy nettali nañ ko wax ku dem ci attikaay yi ñu ne waa ji damaa saaga bu ñu la nee waxal saagoo am nga droit wax saagoo na mu demee waaye nag waroo di wax nit ñi di saaga comme ni ñuy gis léeg-léeg ci attarikat yi di wax baat yoo xam ne terme yoo xam ne saaga la saaga la dañ leen dañoo déggul lakk yi ba ñu defee ne du saaga te saaga la euh, taal am na ñoo xam am na baat boo xam ne nit ñi dañ koo tàmm ñafe ñafe taal du liggéey ñafe du liggéey saaga la hmm. oui saaga la ndax loo ñëwee la wax mag rek saak la gone la ñuy wax dama lay mais mag kenn ñëwee ku ko wax kon on on dit ñese pas ñafe ñese mooy góorgóorlu def ko effort moo tax sama benn taalib man su ma déggee kuy wax ba naa damay ñafe te fekk muy ñase te muy def lu jafe ah ñese mooy def lu jafe bu dee looy xool yi bu dëgëree da naa dafa ñes bu dee looy bay bu dëgëree da nga naan tool bi dafa ñes noonu la tey moo naa la kon damay ñese on dit mais léegi danoo dem a dem ba danoo xam nga danoo complexe xam nga danoo déggul làkk bi xam nga loolu la danoo réer boo làkkee baatu tubaab juum ni pardon léegi nag wolof nu la neex nga wax ko tukulóor nu la neex nga wax ko séeréer nu la neex nga wax ko loolu du fulla la ma waral loolu li ñu ko waral mooy dañ ñoo xasu dañ ñoo dañ ñoo dañ ñoo agressé agression agression culturelle la moo tax ma ni woon euh, tubaab yi bi ñu fi ñëwee euh, dama wokkal ma man maa ne woon wokkal ma dootul fay xesen moo tax du neex suñu wokkaloon suñu bopp tey jii lii du am waaye dem tugal jël seeni aada ak seeni yëf mbaa sax tugal ñëw xeex lu bàyyi fi ay yëfam wokkal ma du neex am taala boo deen doo kenn di ko wokkal ma muy wokk am na jëmal kaw jëmal suuf wokkal ndaag wokkal bu baax moo tax sa ali sall ndeysaan yàlla yàlla yokk ko wér sama seex boobu bi ñu ko bëggee jël mu nekk ci candidat yi député am yow xanaa moo wax sax comme sa xarit la bu mu dugg ci yooyu man ko léegi loo bëgg da nga bëgg a nekk rek ñuy pousse rek te duñu duñu duñu dawal xam da nga koy bëgg nekk ñuy xam rek te duñu taal déedéet ci laa bindoon ni l'islam xàllal leen ko aw yoonam mu ñëw sëmbax loo xam nga sëmbax mooy dugal sa loxo ni ñëpp sampum dëndam bàkku bu ko kenn nag ni tey bokkuloo day ñëw taal si rëgal bàyyi xambaan mi des te xaaraan day am otoom dawal bàyyi puusaan mi day sonn loo kon war na noo yeble fenee ñuy fasee ka feccee xam nga foofu mooy assemblée kon war na noo yeble fenee ñuy fasee ka feccee kuy yëkkatil diine kàddu dëkk bu nu wokkuloo du doon fan yi xesal nan jël teg suñuy yoxo xaas xam nga lu tax yoxo yoxo bu ëppee benn yoxo la wala fa di wax bu dee benn loxo ngay wax waaw mu nga xam ni bët benn ngay wax bu dee ñaar nga ni ay gët ay yoxo ma ne nag nañ jël ko nañ jël teg suñuy yokko xaas ca kaw fane xesar moo gën wokkaloo di xuloo wokkal bu baax ndànk wokkal kaw wokkal ba ca suuf lii lépp lii ndeyam mooy wokkoo da ngaa wokkoo taal yi loolu dal yëpp wokkul bi la tubaab yi bi ñu ñëw fii seen culture la ñu indi du xam-xam rek lañ ñu jox bu doon xam-xam bi kenn du ko contre nee naa woon njàngum tubaab du lu ñuy bañ ab tërëm ab yaram moo waroog yaram lislaam ba ñu muy noonu tax ba tey dikkandool fekk boobu dama ne woon tubaab bi woon fi te weexoon moo fi del si tey ñuul bukki bu lamboo deru pëy moom la ñii di nuroon dafay ne noonu ba mu laa dem bàyyi kooki donoom cu jaabi ñii di xëccoo tey moodu lañu wala pool seen turi moodu yëpp comme nax tax nga foog ni ko ñoom waroon nañoo ak Edouard ñoo bokk kees gu leen néer xeex na ba sampi xeex na ba noonu sampi daaraam jër ci doomi suñu réew ak ba fi ñëwee la taxaw xeex waaw daara yi mu fi fekkoon ñu daal ci yar ndawi lislaam gas ba xam di ko suul xeex na ba sampi daaraam yar ci doomi suñu réew ak mas ku koy wutu mooy ñii tey di jàngi école man nag njàngum école du lu ñuy bañ ab yaram moo waroog yarum lislaam ba ñu miinoon tax ba tey jikko ndóol yooyu da ngay dégg naan da nga ko jàngal ko tawam ndax muy yeru ta yow jàpp nga ni man dof laa man boo ko jàppee yàgg keneen man jàpp nga ni dof laa man kon jàng tubaab defuñu ko pour yow dañ ko jàpp am xam pour am xam-xam xam-xam nag ko jëli ci làkku tubaab man na ko jëli ci weneen làkk man na ko jëli ci weneen làkk euh, Cheikh Moustapha Bachir yàlla yàlla doole yërmande ak njéggal ci moom keroog bi muy taxawal daara maam jaare yi alxamis ci guddi da ko def déclaration bi dafa bëgg a tabaxal daara yoo xam ne da ciy bëgg a jàngal turandooy soxna jaara yar leen yar boo xam ne dinañ mel ni soxna jaara kan mooy soxna jaara soxna jaara mooy soxna su baax su tedd su yiw soosu nga xam ne wu jëm ko indi kër maam Mor Anta soxna Anta Ndiaye moo ko fa indi soxna Anta Ndiaye moo doon wàccee seen maam Mor Anta seen ba ñëwul mu naqar lu ko dem ci bàyyam di ko wax bàyyam ni ko man ko ban ko koo faj mu ne ko nu ma koy faje mu ni ko nga doon seet ba mu dem liggéey ba métti te bëggu ta daw mu dem ci yaay soxna jaara soxna waalo ni ko mariama mii laa bëgg mu ñëw li ma sama kër ga booba tuddul jaara mariama la tudd mariama buso jaamu yàllam gu bari moo tax ñu dee ko jaaratulaa mu ne ko wax lan mariama mu wax ko ko mariama ni ko ndax ki nga may bëgg a may jàng na alquran mu ne ko kaan la kaan mooy ko mokkal alquran mu ne ko am na xam-xam mu ne ko fóore la fóore mooy ko xam li alquran di tekki boo ko mokkalee xam li ñu tekki moom la ñuy wax kaan fóore ne ko mbaa na yàlla mu ne ko loolu mu ne ko nangu la mu ne ko nangu la bii ko jëlee ba di ko bëgg a yóbbu te basan gi ñu ko teg di ko waajal mu nu nañ ko jox kaamilu alxuraan bi ñu ko joxee kaamil mu jàng maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xaatimin nabiyyiin daal di wëndeel boppam ñu ne ko mariama lu mu doon da ngaa ragal fëgg a mu ni déedéet fee ma jëm ci kër Mor Anta dama faa bëggoon a jur ab yonent waaye aay yi ma jàng wax na ma ni yonent yi fa mu doon jóge jeex na fa waaye wóor na ma ni su fa jiwaxutoon boo ma demee dinaa fa jur ab yonent taala jigéen rek moo man a wax ni kër sànq boo fa demee dinaa fa jur doom ji mel nangam waaye du góor moo ko man